message tay bi nak ay ndaw président de la république ñom ñokay koy sen président sen chef de parti mais seen chef d'État, monsieur le président Macky Sall. nous ñi nga xamantene ne ñoo nekk tey jeunesse Benno Bokk Yaakaar du département de Rufisque dañu jóge ci élection dañu perdre li nga xamne moy département euh, de Rufisque muy une première fois ci élection nationale ñu ngi koy doog perte depuis ñu and ak président Macky Sall ba tay yenn la ñu final la ñu xeex nañ guddi bëccëg fépp fu xamantene ne ni turu président waro na fa yegg wala tay ji suñu soutien ci wetam def nañ ko ba loolu ñëpp naataabale nañ ko pour jël exemple rek ci élection 2019 dans la région de Dakar muy élection présidentielle département de Rufisque mo jël P avec 58 nous permettront le président de la république Macky Sall de la région de Dakar. te depuis boobu ba léegi aussi euh, gis réalisation yu au niveau national mais au niveau départemental de Rufisque avec le pôle urbain de Diamniadio dañ koy rafetlu waaye nag ñun ñi nga xamante son excellence monsieur le président de la république. tey ku nekk le Sénégal fu même le monde entier loxo ndaw yi dañ ci te tey responsabilisation boobu nga xamante ne moom la ñu bëgg tey ñu defal ka ndaw yi rawatina ndaw département Rufisque waxoon naa ko koroog ba ñu dajee sa audience ba mu ñu moyoon fële sa de la République que la jeunesse républicaine benn Bokk Yaakaar du département de Rufisque et laissé en rade laissé en rade boobu nag du question ne dañoo seetaan wala dara seulement lenn rek la mooy tey chômage bi bëri na si ndaw ñi mooy tey responsabilité yi nga xamante ne sunu yeneen département yi muy Pikine muy Guédiawaye muy dakaar di Kër Massar gi mujjee ñëw dañuy responsabiliser seen i tey boo ñëwee au niveau du département depuis que ñuy accompagner le président de la république ba tey benn doomu tëngee jeune mënta yi ki loo xam ne maa yore direction bi may chef de service fii wala may ministre fii mais loolu daf ñoo métti c'est un il faut ñu génn ko tey taxawuñu pour xas suñu kenn bu dee suñu ay leader peut-être euh, wax nañ si liñ si waroon a wax waaye ba tey fajul ñu ne ñun nañu jël suñu ay responsabilité parce que c'est notre présidence, c'est notre chef de parti yoon ak droit may nañu ñu wax ak moom si njëkk ak teranga dañ ko fu ñu toll dañ koy sant te tey suba ginnaaw suba ñu ngi si ginnaawam di ko accompagner pour mu agali sa mission lenn rek moo ñu métti mooy li nga xamante ne mooy responsabilité yi nga xam war nañu koo am HTCC yi ñu jëm nii ak li nga xam ne mooy conseil économique social yi nga xam ne mooy toppat si ginnaawam mais ay jeunes lañ mais jeunes yi responsable ñoo fi ne cadre mais des jeunes politiques aussi 13, 3 me importó.